jiitul naa leen bu ñu xëyee kër jóob kër jóob kër tey de du ngeen ci bu soob yàlla waaye daal xam naa ne ren jii daal lii ma gis nii du yomb weeru koor hey waaye fu ma jëm changé diine sax bu amoon maanaam nga nekk di ba mu neex la nga ba weeru koor ñëw nga nekk catholique boobaa sax lu ma nekk catholique day yomb ab juif laay doon ndax ñoom dégg naa xamuñu ko taman sax xatuma damaa xatu karmat naa def nu may woore waaye ko karmat nu may woore Audio Jungle. Brega de motorcito. Ai, ai, ai, vai. waaye weeru koor gi nam naa nar naa aada. waaye yow xanaa ko koor gi. laa ilaaha illallaah. loolu sa yoon nekk si li ma fi indi. yaa ngi ne dugg nga yam de échange tool yi. waaw baax na ok sax dugg nga woon yow. waaw baax na waaw. chambre laa bëggoon. dañ maa yóbbu dañ maa tettal fii nii ne ma fi am na benn chambre. yow nag yow nag yow nag li ñu naan gone yi dañoo war maa ngi koy doo xam. poto sàmbu douche bii da bitig bii di ko jaay nga ñëw fii di laaj ay poto sàmbu. papa chambre laa la wax néeg français chambre la ñuy wax. waaye a wax nag yow it xam nga ko mais hmm. a demee saa tool yi. Eh, ma ne lan ah, ah, hmm. moom tur bi nan sax. aw laa tudd waaye mën nga ma woowee Awish Baby Diop. awus beewi. Mhm, Diop Diop. ñu naan Diop nga sant. Diop laa sant Diop bu Diop ma sant seen Dior. ah la damel ah. macha allah loxo bi moom taw na di <laughs> ah. waaw waxal ci Aliou Kala ji. Euh, si chambre néeg bi mooy ut. waaw am na. ah waaye nag cher na de. ah waaw ah, cher na trop sax. ñaata la néeg moom kenn du ko laal. pour yow moom naa la ko defal ñetti junni. ñetti junni mooy lan. ñetti junni. ah 15000 francs. non loolu c'est pas cher dafa yomb sax. non loolu cherul papa. 15000 francs day man ka waaw waaw. instant yi moom. pour l'instant. mais am na sama yeneen copines yu ñëw après su ma installé pare la ñuy ñëw. copine. waaw yooyu moom bu ñëwee da ma ci may moom. man ko woon moom. copine copine moom foo ko yoree moom. papa samay copine yi may àndal pour ñu bokk néeg bi ñoo koy bokk néeg bi. maa ay copine ngay bokkal néeg bi. <laughs> papa waxuma la copine de samay xarit maanaam copine. ba ma reeree sa de damay laaj rek <laughs> damay laaj rek. papa yow neex nga de. ah bu ah ah bu sama neexaay xamagoo ci yow koor gi jàpp nga ne man xam ne maa neex. <laughs> sama xarit samay xarit la. waaw maanaam xarit. waaw samay xarit sama ñaar copine. ci français la waaw gis tamit. waaw lu ñuy def. ah waaw léegi nag moom. faaw nga avance nag. avance faaw avance waaw. Ah, instant yi moom indi naa benn 5000. après damay dem retirer xaalis compte la nekk. waaw ah. ah, baax ah, na moom doo ñëw rek waaw waaw loolu moom c'est vrai. léegi fii nii yor naa fi benn. wóor naa laaj lu bari sax mais defuma ko. yor naa fi benn 5000 francs après su ma ñëwee ba pare ma delloo la. naa jaxasoo tuuti mais. waaw ma yett yent. ah yow xanaa da nga doon condamné. xanaa wóolu woo ma tamit. sax mais dafa bari. waaw waaw ñëpp la. man bële mooy néeg bële borom rido bu xonk bële. waaw waaw ñëwal ñu rek. waaw defal defal jiitu dinaa la ko won. Ah, papa yaa ci dëkk waaw néeg baa ngee yow it nag <laughs> jàmm. asalaamaaleykum. ay waay waay waay waay waay waay waay. sama waa jànge. ay waay na ma naa la de. ay waay na ma naa la de. ay waay yow jàmm. dellu ma lii. ay waay na ma. ginaar laa ndaale de. yow daal doo sens mukk. bàyyi a sa baaba ginaar gi daaw yow ginaar yi nga foo jaar yor ginaar ba léegi dama koo doon eh? ginaar rek laay jaay naka ngéwal gi ña nga fa rek man damaa nam ngéwal sax amul xaraa nga jógee Touba mooy loolu ngéwal dafa kii aar dafa dee am na ngéwal ah yow xam nga ne Dakar moom jël rëddal gas kib gas rëddal gas gas rëddal tas mag kib rëddal ni jaay fàtte woo de damaa woor damaa woor te gone yi dañ fay nekk. Eh, waay daal di biir saay saay saay daal di biir. Eh, waay waay damaa ñëw pour pour pour koor si yow moom yow moom dama bokk ak yow néeg. tey laa lay sos nag. waaw ma ne ana sa yaay. sama yaay nga fa. Eh. <laughs> waaye nag Touba aar dafa dee ndax sëñ bi xam nga tey. waaw waaw mais pourtant ni jaay ba léegi fàtte mu nag. ah yóbbul ma gam. ci gis sa bu rëdd gas. ci gis sa bu rëdd tur. tat tat. ne naa la ba taay bàyyi sa daaneel yi. ah ma dama nekk ci weeru koor rek. ah Fatou nekk weeru koor mais daaneel bi dee ko seetlu. dama nekk ci weeru koor rek raay <laughs> mais jàmbaar nga parce que pied droite bi des. waaw waaye na xale am na génne daaneel bi ñu génne léegi. aa ah, de. waaw bu ñu après ci saa da lañ toog mais dinaa la ko won <laughs> ay sama nijaay ji waaye gis xale yaa ngi fi. baa ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm bu baax. ah ah. ay waay ana wax salaam. Maguette a Maguette xanaa war nga koo xàmme. kii mooy kat kii mooy Maguette moom nga ñëwoon toogal moom nga ñëwoon ci ngenteel daaw jéeg rek xam nga gone yi moom. Maguette eh! Maguette dof la ñuy moom Maguette nii. Maguette a ngi laay lay la la ah nga Maguette nii. Ah, ah! a jooy macha allah. puuf ci daan def. ah gone ah gone la comme ba ngay ah! ne. bàyyi yaa sangu wala kii. sang ah kay dama kii ci biir. dafa xëy. muy prononcé ak bopp bu ndaw mi naan am na li fi xëy na eh, papa man mën na maa toog fi booy kii dafa réew. kii dafa réew wër maa toog fi mu naan am na lu fi xëy. waaw gone la rek. ah gone sax. kii dafa réew. Ah? wër maa toog fi mu naan am na lu fi xëy. dama koy ñuus na jégal ko jégal ñu ñu ndogoo dinaa jox kilo war ngaa ko ba lu muy am kilo mburu na <laughs> naa nam nga toog nam naa ko torop man kay dugg aa ah, ah ah ma ne kii faaw nga dëkk ci dara nag euh, maanaam nijaay nga baal ma lii dama ko fay andiwul pour ñu koy ndogo dama ko fay andi pour muy jur hmm. waaw ab aawa laa ko tudde xam nga boo xoolee xam ne ab aawa la kat nijaay dama soñ nag waaw baax na léegi nag xoolal waaw jugal dugg ci biir jugal xam naa fee moom laa lay dalal fee gis nga nekk fee lay dalal jugal jugal jugal fii du amuñu suñu toogaay jugal gaaw jugal xam naa ndogu léegi mu jot. ah waaye li yaay waaye lay la man daal ma Nijaay waaw Nijaay xam nga woor ba ngoon kii yor ndox mi di reewantalu ci kaw nit ñi kii gone la bàyyi ko mu def lu ko neex waaw ah, tey am na dara maa tey yow yow yow yow fan nga nekkoon soo wala man dama lay ñuus ah ma ne nga noppi la déglu mu naan ma maa tey moo tey yow ndoxam mi ci biir nit ñi boo ma eh, eh, naan na eh, naan na yow it toogal nga nekkoon yow soo wala ndawtal ak yow ndawtal gi ngay seeyal wala yow lan ngay seeyee yow da ngaa war a am fulla ci sa bopp waaye dama nga ni ndox mi ñu ndox da ngaa war a am fulla ci sa bopp. balaa kaay kaay kaay kaay balaa booba boo gisee baaba ginaar mi doo ko nuyu. kii nan laa koy nuyoo mu jox ko xale bi di ko mel ni yow. ana gan ak kii gan la tey la fi ñëw. ana gan ak yow yu bëri lu tax. demal ngaa ni ndogaluy. demal ngaa ni ba mu day. boo ko ñuusee ma ñuus ko wala. ah <laughs> nijaay. ñëwal andi ndog bi. waa kii foo waaye boo toppee foo jëm. andi suñu ndog bi ñu ndogu. andi suñu ndog li. sàmmiñ nga leen doon ma jàpp man du ma woor ba ngoon jot ngeen may sonal. ñun duñ sa morom wax ah. xoolal li lii. waaw kii moom kii moom daa mënul wax wala maanaam lan mooy problème. kii ak étudiant la. étudiante. étu. étudiante. jant waaw mu ciy dugg dama lay ñuus. boo ko ñuusee ma ñuus la. defal lu la neex dagal mburu bi da booy. sa dàll yi teg ko fii lii man ba léegi fàtte ma ñuus xale dama lay ñuus. boo nga day boo ko ñuusee ma ñuus la nag. ah léegi sa sa doom sa doom nga may kii. waaw. yow da ngaa ëppal trop. kër goo xam ne ñëppay na nga téye sa loxo bi yow civilisé woo de. sin ba doo téye sa loxo ba jox sa caay bi yëmbax fii. na ko jàmbur yow it nag sa bàyyi dina sol caay naa ko caay ba yëmbax. kii dafa réew mais man dama lay ñuus. dama lay ñuus maa tey teel sa dàll bi. xaaral ma mën na ko ba pare jox ma mburu bu gaaw. ndox yi sax dafa jot benn yoon ah. ndox jox la waaye